c'est très important euh, xam nga lu waral loolu li ko hmm. waral mooy euh, maanaam waruñu jël rab bi dëkkale ko fenn hmm. euh, tey xam naa li nga bëggoon moom mooy tey bu ñuy wax ñu wax comme kaana yi solo comme kaana yi ni ñuy soloo donc voilà waaye bu ñu fekkante foog maa ngi ñoom beneen affaire lay doon. mbaadu du yomb non du yomb. Hmm. donc voilà waaye nag man lii laa gëm quoi. li ma gëm mooy li ma fekk li ma moom. man ma man man ma doxee ko. Hmm. loolu moo tax toujours da koy gis ci langage bi gis ko ci solin bi gis ko ci sama fépp parce que loolu laa gëm. Hmm. bon munoon naa mel ne neen munoon naa sumay ñëw ma teg samay kii xam nga takk samay bagage xam nga ñëw xam nga di wax waxi rappeur comme gars yi ni ñu koy defee mais bon dama koy bàyyeek ñoom parce que ñoom euh, ñi si gën a bari la majeure partie dañ ko. dañ ko jéegaane laay wax sax quoi. Mhm. dañ ko jéegaane benn culture la boo. yaa ngi commencé clash de te dama ko non non yaa fa dugal. waaw nañ <laughs> foog ñu xam quoi. comme yaa ma fa dugal foog ñu xam quoi di waral loolu quoi. donc euh, voilà. Euh, hmm. di wax ne oustaz bi ngay gis alhamdulilah rabbil alamin bi ma bi ma bi nga ma xoolee. nga ne ma dañuy gis ci yow oustaz. taalibe maa ngi sant yàlla bu baax a baax ci loolu noonu. Hmm. ndax loolu la ñuy yaree. ndax hmm. ñun dañu jàng ba ñu wàccee alxuraan jàng sariya def lépp. bon nekk tamit euh, jóge tamit ci euh, famille boo xamante ne formé nañ ay imam euh, maa ngi leen di nuyu waale di passage ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama sëriñ yooyu noonu yàlla may leen fan bu gudd ak wér. Mhm. ndax loolu moom yaakaar naan ku ko def rek war nañ la mën a ñaanal quoi. Mhm. ndax imaam yi tey ñoom ñoo représenté yeneen bi rasul sallallahu alayhi wasallam fii nii. donc di wax ne rek rab bi bon dañ ci dañ ci newoon mel noonu nga wax tey. Mhm. waaw xam nga di yëngal. waaw di jaay prek comme ni nga gars yi di waxee xam nga mm-hmm. wàcc ci terrain bi di classe mm-hmm. mais biñ demee ba ci biir def ay prise de conscience xam ne lii bon euh, maanaam benn benn philosophie fayul quoi walla xam nga li am solo mooy message yi quoi mm-hmm. message yi ak li ngay ak li ngay ak li ngay xeex maanaam objectif bi ñu rappeur je pense que comme ni nga ko daan waxee ci ay jamono euh, dañ daan wax ñoom dañuy xeex ñoom ñoo ñoo fi nekkal waa mbedd mi boo seetee rab bu njëkk bon loolu dafay gis quoi. waaw loolu nga fay gis mais rabu tey. dafa xaw business la quoi voilà merci beaucoup. donc bu ñu demee nag ba xamuñu fu ñu jëm dañuy dend fi ñu jógee. ok waaw loolu moo waral style bii nii quoi. Euh, nga gis ci man. ok yow waaw man damay def euh, hip hop laay def variété. variété laay def quoi maanaam maanaam lu ma sentir laay def koi damay def euh, mbalaax sax. so album bi am na sax mbalax deuxième titre bi mbalaax la. ah mais yow doo déggoo ak rappeurs de. parce que ah. ñoom. non man bëgguma déggoo ak ñoom sax. mais waaw bëgguma déggoo ñoom sax. ndax dëgg yàlla. seen bopp nga ne ko Moussa yaa ne. waaw bu dee du